الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني marché Xelcom nekkee fii ci Touba ci village yu Touba Darou Manane moom kat mel ni moo taxo ñu sanc ko sëñ Saliou Mbacké mu baax ma moom kat moo baax wan ñun di mbokki taalibe yi ay jamono te ñu teewoon fële ca xel comme jaaga ci liggéeyam ba neen kat dem leen toog foofa am leen loo xam ne da ngeen ci yëngatu marché bi nag bañ koy door am mat la moo xam ne xare woon nañ ko fële ci xel comme indi woon ko ci dëkk bii di Touba biñ ko fi indee nag mel na ni matt mooma moo mujj soppeeku doon li nga xam ne kat mooy ay meuble wante dénk yoo xam ne dénk yi cher la wante ay weñ ak armiñong ak li nga xam ni mooy ay ngëneel yu jëm ci dundu doomu aadama ku fi teewoon nag jamonoy sanc ya ak sunu jonni tey da nga xam ni marché xelkom bii jëfe ndigal kat moo may ndam ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay mag ñu baax ñoo xam ne ñoo àndoon nag ñii di tuut tànki doon boole seen i déem ak seen i daqaar defi kaay ma kaayaatu mel na ne kat jamono ñu toll am nañu li nga xam ni moom moo doon seen bëgg-bëgg ñu gis ni ñu bari ci mag ñooñu làqu nañu yàlla na yàlla sunu borom bi yokk seen i leer ñenn ñi fi des akus néew muy digg nga tuut tànk yi tuut nag ku nekk bàyyi kon na ci gox ci biir réewum Sénégal ak fii ci euh, di ak ci fii ci dëkk bi di Touba di daje fa fa di am loolu nga xam ne kat mooy liggéey xeeti liggéey yi nga xam ne moo jëm ci kër yëpp da nga ko fa gis moo xam ni menuisier bois moo xam ni menuisier métallique moo xam muy soudeur moo xam muy jaaykatu quincaillerie moo xam muy brocanteur ñi jaay matériel yi nga xam ne moom la ñu fara ci mbedd yi ak ñi nga xam ne ñooy dawalkati sareet ku nekk ci ñoom. ci la ngay yëngatu mu néew mu bari yaa ngi gis sa bopp ndax sëñ Saliou Mbacke ñaanam nga kat mel na ni tab bi na ci loolu di seen i yëngu-yëngu marché boobu nag doon marché boo xam ne làqu gi mu làqu rek moo tax ñu bari ci diwaanu Touba ak Mbacke xamuñu ko même bu fekkee am na ñoo xam ne danañ bàyyi ko ci yeneen région ñëw di fi teew di amal jënd ay bagage mel nag Touba ak Mbacke ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi ñàkk xam marché bi tax na leen rek ñuy wër loo xam ne yóbbu na leen lool jege leen lool wante gis ko dana leen faral di jafe marché bi nag ñàkk nañu aw yoon woo xam ne moo fa jëm tax ba suuf si tax ñu bari ci borom oto yi sawaruñ fa ñoo nag yëkkati nañu seen kaddu sàkku ci ñi nga xam ni ñooy waa mairie Touba ñu góor góorlu tali yi ñi nga xam ni moom la ñuy séddale ak lampi courant yi ñu bañ cee fàtte loolu nga xam ne mooy xel Xelkom marché bi nag mel na ne kat mi ngi ci yoonu yegg fa nga xam ni moom la sëñ bi bëggoon mu yegg fa mu mel na gunge leen bokk na ci li jàppale ñoo ci taalibe ci loolu nga xam ni mooy gëm gi ñu gëm Serigne Touba ak doyloo Serigne Touba ndaxte boobaak léegi ñoo nga fa amuñu courant amuñu lii di yoonu baax wante teewul ñoo nga toog rek saxal ndigal la ak di dina ndigal la nga xam ni moo tukkee woon ci ko tedd ka mu mel ni nag ñaanuk doomu Serigne Touba moom kat amin rek ngay wax am yaakaar te xam ni sëñ Saliou Mbacké lépp loo xam ne jëmmatoon na ko mel na ne kat meññ na ba lii nga xam ne kat mooy doomu aadama yi am ci lii nga xam ne mooy njariñ jëfe ndigal nag bokk na ci li nga xam ne bu ñu ko defoon rek mbir dana yomb lool ndax marché boobu di marché Xelcom ña fa nekk ay taalibe lañu jàng xasaayit jóge ca daar ya jàng seen métier ñëw ci marché bi di fa amal loolu nga xam ne mooy seen yëngu-yëngu jàng xasaayit tabax jàkk joo xam ni waxtu yi juróom fa lañ koy màggalee wante lii di siisante buuxante ak warante amu ci seen diggante ñoom kat bokk ndey bokk baay bokk jubluwaay muy liggéey sëñ Tuubaa moom kat la ñu gis ci ñoom tax ba saa suñu xëyee mel ne kat sant rek la ñuy dëkkee te bu ñu nelawee danañ yàndoor ndax foofa kat amul kenn koo xam ni danga def sa morom loo xam ni lislaam daganalu ko lu ci mën di am nag doy nañu sëkk ci royukaay ndax xat lu ñu mbedd yi marché ba ko nekk yem nga fa nga war a yem ñu ko seeteeg li ci marché yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba muy marché Ocass marché Darou Khoudoss marché yi nga xam ne mooy njóbentaay mel na ni boo xamante ba am ak lal ci mbedd ya boo ñëwee marché xel comme danga xam ni kat jëfee ndigal ak royukaay. boo ko dee wër ba yegg ci ñi nekk marché Xelcom bu Serigne Salim Mbacké Touba Darou Marnaan mën ngaa dëpp alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xad sahani liwatani bi nafa ma fani